ci comment encore Kajoor jërëjëf Kajoor donc li nga wax noonu lu am solo la mais LACOS c'est les leaders alliés au candidat Ousmane je pense que comme ni nga ko waxee c'est intéressant képp kuy politique tey nga bokk LACOS ak nga bañ a bokk LACOS ak nga bokk société civile war ngaa xam ne fii ñu toll ci Sénégal en 2023 war nañoo dépasser ci wàllu démocratie fu naan dañuy éliminer un candidat la candidature donc lii du combat Ousmane Sonko man mii di wax ak yow tey nekk leader allié au candidat Ousmane Sonko benn yoon laa gis Ousmane Sonko te taxuma ko woon jug keneen na ko taxoon jóg ma bokk ca ndaje ma ñu toog waxtaan moom Ousmane Sonko tey mi nekk ci biir kaso bi gis ngeen ko ville de Dakar mairie de Dakar mu taxaw ne Barthélémy Dias kenn du nangu mairie am comme nañ defoon ci li nga xam ne moom mooy moom mooy Khalifa Sall gis ngeen le président Ousmane Sonko mu dem Pikine ci en 2022 local ñu fekk fa docteur Cheikh Dieng mu nekk wàllu moom mu nekk yeewi mu gagné mairie bu Ziguinchor jàpp ne docteur Cheikh Dieng bokk yaakaar daf koy jaay au niveau de la de la ville de Pikine mu ci point de presse donc ñun kii ñu jàppale ku ci nekkoon ci ñun mu leer ko ne injustice moo topp ci sa kaw dañ la dañ la jaay doole dañ la tënk day am taxawaay bu ëpp ñun bi nga xam ne moom moom moom la ñu am dañu jàpp ne Ousmane Sonko bokk ci élection une élection inclusive ñi war bokk ñëpp bokk léegi nag dafa am koo xam ne moo fal Macky Sall xam nga mooy kan mooy 65 pour cent des suffrages en 2012 du man kenn peuple bi ñoo décidé ne Ablaye Wade 30 lañ lay jox kee 65 lañ koy jox kee 7 lañ koy jox kee 2 kee sax ñu ne ko joxuñu la am koo xam ne sax dañ ne ko duñ la parrainé kon kooku kese moo habilité mhm. pour tànnaat le président de la république muy le peuple sénégalais au soir du 25 février léegi def nga sa premier baraada def sa ñaareelu baraada noppi nga da ngay bàyyi baraada ak sénégalais yi nga xam ne ñoo la dénkoon baraada bi ñu ne la aal ñu suñ baraada ñu mu defaat ñaari baraadaam bu paree dem keneen ñëw loolu mooy démocratie kon li ñuy xeex du ay ça dépasse la personne de mais tey suba bu Ousmane Sonko nekkoon le président de la République jàkkaarloog benn opposant ne ko tey doo nekk candidat même taxawaay bi la ñuy am waaye nag tey li nga wax lu am la am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne ñi ngi ci ñoom ñi seen jàmm ñi ngi ñi ngi nekk seen seen olala seen candidature dugg na waaye nag ku jàpp ne tu es épargné de ce problème yaa ngi nax sa bopp. d'accord waaw kon loolu loolu mooy tontu bi nga xam ne moom lañ ci bëggoon yokk.